la tarkabunna tabaxan an tabaxin adadu nafsi bi moo lay jox 1045 dangay jël mujjibu boo ko darbo ci waahidun 19 mu jox la loola muy secret boo xam ne képp koo xamee ne danga feebar ba ba munoo dara wala cat sonal la wala rab wala liggéey lu mën doon euh, tarka mun a tabaxin an tabaxin da nga koy bind ñaata yoon 19 fois nga def ko si cinu ñàng tàng goo xam ne ni cin goo xam ne dañ see togg ñàng tàng si ngay def saafara bi sangoo ko lépp lu mu fekk sa yaram bu doon fukki at day dañ cat nag dootul man si yow dara ba tey bu fekkee tamit da ngay xëccoog nit dara nga bëgg ko jot danga koy bind 19 fois nga yéeg si kaw teraas nga taxaw fa sangoo ko fa waaye nag boo ko fay sangoo la tarkabu na tabaxin an tabaxin da ngay booy xëppu saafara bi dangay tudd ñi nga xam ne moom ngay xëccool wallahi bu noon junni ñuy xëccoo kenn ku ne wut gàllaaj gu ne yow yow yaa koy jël moom lan laan bu fekkee danga ko bind 44 fois nga wut simiñ lakk ko ba mu xonq nga fay ko ci biir saafara bi sangoo ko fitis mënatul ci yow dara xam nga fitis moom pour ku lay jéemal liggéey day delluwaat ci kawam muy ci fitis muy ci koort si lu mën a doon képp ku lay fexeel rek day delluwaat ci moom waaw bu fekkee nag moom wàllu rab la lu ngi koy bind cent quatre fois nga wut xobi daqaar boole kook moom sangoo ko juróom ñaari fan lépp lu nekk sa yaram dañ na ba set wecc ci barke la tarkabu na tabaxan an tabaxin mbaat yu doy waar la noonu la gaawe ci nopp waaye nag boobu moom duñ ci ñëw ko incha allah